Serigne Abdou Latif Diène mu yàgg fi loolu tànt ak wér di ñaanal yéen ñi nga xam ne ñoo la yéen laa toogal yàlla jéggal ñu defal ñu tawfeex ak saxaadatu daarayni bis bi ngeen jublu nag muy bisub xasida yi sëñ Tuubaa dafa amul leen lu dul moom ndax sëñ Tuubaa lim def lépp karaamaam mooy mbindam te karaamati xatt yo di fii xidmatil mu ajadi la wax kon bu fekkee da ngeen a bëgg indi bis boo xam ne ngir jëmmi xasida yi la kon bis booba di ngeen miraas miraas mooy kenn ko ne la nga am nga def ko ca te bu ci xalaat lenn dootul ak fay ëllëg ndox sëñ Tuubaa am nag fay loolu waaye mën a wax ci àdduna li fi ak yaakaarul sëñ Tuubaa doyloo ko bàyyi kook suñu bopp loolu waaye mën a wax ci àdduna dëgg ci ñun te ñun sunuy maam ak sunuy sunu askan ñëpp ñun ñëpp ñi ñun ñi ñëpp sëñ Tuubaa dañ yaakaar kon bu bis baa luñ ci laaj ñëpp na ko def ngir jëm Sëñ Tuubaa jaayante rek ma leen ci mën a génne inna yi yubayyi'uunaka innamaa yubayyi'uuna llaah yadullaahi fawqa aydiihim képp ku jaayantewul tamit da ngay sama jaayante rek moo la ci mën a génne kon nanu jaayante te booloo ànd nekk ci suñu biir te bu bis ba kenn ku ne xam fa nga yem sa morom kenn ku ne xam fa nga teg sa sa morom nas maslaa booloo xam ne lii Sëñ Tuubaa rek moo ko dogal te moo ko waral ci ñun ñu dikk ba ci réew yoo xam ne ay nasaraan lan gëmuñu yàlla gëmuñu yonent bi ñu dikk fii di ci yëkk di fi yëkkati xaside Sëñ Tuubaa loolu ñun suñu defuwaar la ñun dañ ko war a def Sëñ Tuubaa amuñ mënuñu ko fay li ko mën a fay di feeñal ay mbiram te ay mbiram feeñ na te dudul fay te lii ñu koy defal nag ak fay la ci ñun di leen jàllal benn message boo xam sëñ Abo Mbacke ibnu sëñ Fallu mu ngi fii ci Brésil xam naa dina egg si Argentine ndax jàllale ko daa mënta ñàkk ndax mooy kilifa dëkk bi jamono bii ñu toll ba ba Sénégal kilifa la fa kon nag nañ ko waajal teere ko kenn ku ne moom it la nga am nga def ko ngir jëm sëñ Fallu te xam ni bu sëñ Fallu ñëwaatoon tey du chance yu doxoon moom sëñ Abo kon nañ ko teeru yaatal ko dalal ko ngir jëm sëñ Fallu wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf sëñ bi jenn jërëjëf kàddu yi rafet na macha am na solo yaa ngi yàlla suñu borom subhaanahu wa taala dafa dégg ak topp waaw comme ni ko sëñ bi waxee rek bis baa ngi noonu la le 9 juin la 9 juillet mu naan maanaam 9 de julio fii si yal nañu yàlla suñu borom yóbbuñu si jàmm ak salaam di jaay seexu xaddim kaan lawo bi karamihil baaxil xaddim